jërë ngeen jëf xam ne euh, yoon bi ci kanam avancé ci kanam. siga siga siga gashi Idriss Idriss bi jaru ko Mm. Ang kawan niya.

Allah لله الذي قاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بالسلاسل الإيجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمده سبحانه وتعالى واشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله شهادة عبد منيب الخاشع الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأزلين الأبد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والإعلام وجددوا الإيمان بدوام الإحسان واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات وخير وراء ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات وعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى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 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ابن آدم تتغافل بالدنيا والأيام تمعاك والقبر غايتك واللحظ مدواك فريق بالجنة وفريق بالسعير كما في محكم تمثيل المستحيل في حقه التمجيد والتدمير فطوبى لعبد بصر بعيوبه وتدارك قبل الفوات وتزود لمعاده وارضى ربه قبل حلول الممات قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن سفرة الباقيات لا زالت إلى العراقيات اللهم انصرنا بهم وارزقنا نصر الدين وخذلنا الخبر المسلمين اللهم اهلك من كان في عراقه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين بالسلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلا وطاعون وزنا ووباء ونجنا من كل بلاء وربا وغلا وطاعون وزنا ووباء ونجنا من كل بلاء وربا وغلا وطاعون وزنا ووباء تحكم من جميع ذلك بلغنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا إن سبقنا بالإيمان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 liggéey يموت فيها ولا يحيون ونزعنا من كل دبر وتعثم فيه فاحتمل وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لبس النبي ولا يسمع إبراهيم وموسى الله أكبر الصراط المستقيم الصراط الذين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله

alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fana nahdu illa wa rasulu kitabillahi ta'ala wa yusabiqu ma'rufan aw masrufan bi ihsan wa man sahaba sabara tabi'a wa yusabiqu alladhi amara wa ba'da ma'ana al-qur'an wa inna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذا أصبحت فانصب إلى ربك فارغب خير. أنا لبركة صديقك. يا من يا الله بركة صديقك. يا من يا الله تقول سيد موسى. بركة الصالحين على الصالحين. يا من يا الله بدك تكون الطين بركة الصالحين على الصالحين. يا الله كنت باسم يرجي يا رب كنت تدعي يا رب. يا الله بركة آدم عليه. سيدي يا الله بركة آدم بالليل. يا الله تقول لي يا رب. مولانا شيخ إبراهيم. تبارك مولانا شيخ إبراهيم. رضي الله عنه تبت مولانا شيخ احمد التجاني رضي الله عنه تبت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سالس سالس سالس انا محمد اه دوما انا كنت

والسلام على رسول الله أما بعد فأنا أنكح سؤالي وعلى شرط كتاب الله تعالى فامساكم بمعروف وبذريهم بإحسان أن يشرح صدرك وضعنا عنك وزرك الذي ينقل ظهرك ورفعنا عنك وزرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرقت من صبح إلى ربك فقر أو خير وأنا على ذلك وسلم. يوم يلا بكر سنتك. يوم يلا تقول سنتك.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 الرحمن الرحيم إذا فرغت من سنك وإلى ربك فارغب أم ترى yàlla na barke seen bopp. yal na yàlla barke seen bopp. yal na yàlla dëppale leen. yal na yàlla dëppale leen. yal na yàlla may leen njaboot bu barke ay saalihiin ak ay saalihaat. yal na yàlla may leen njaboot bu barke ay saalihiin ak ay saalihaat. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. ci barke Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. nekk na jàng Fatiha ak ñetti salaatul Fatiha ñaan yàlla. mbokk yi. mel na nga ne imam ci turi Cheikh Bachir nekkoon bii nga xam ne moom la doon maye léegi xalifa bi nga ko bàyyee woon waaye daf ñoo wax ne dañu ko gërëmal imam ndax taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci lii sant na ko lool ay bokkam yëpp yi itam sant nañu ko ndax ne ñoom ñii nga xam ne ñooy njëkk ak Cheikh El Hadj Mouhamad Zeynab Bachir di seen mag di xalifa bu sante ñoom ñëpp sant nañu ñu ko jiitu sax am nañu. ñun ñu ko jiitu ñëpp sax sant nañu. ñu ngi lay gërëm bu baax. ñun ñu ngi lay gërëm bu baax. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla yow imam. yaa xam li nga bëgg. yaa xam li nga bëgg. yal na la ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li nga bëgg di topp ñu yëpp. li nga bëgg ci njaboot bi yëpp. li nga bëgg ci taalibe yi yëpp. ak li ngay def yëpp. ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may jàmm yaa rabbi jàmm joo xam ne adduna bi yëpp nañ xam ne lii jàmm la ñoom ñoo ko yàlla defal yaa rabbi ci saa ak ci baatu say càppute yëpp ci ànd la yàlla na ko yàlla may lépp loo yóotu yàlla na ko jot képp ku la xaar yàlla xaddi sa kaw jàmm ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax surtout moom nii. mënut laa fay. waaye maa ngi ñaanal yàlla. waaye maa ngi ñaanal yàlla. ñaan gi lay ñaanal yàlla. te ñaan gi lay ñaanal yàlla. dana xam. dana xam. ñëpp dana ci teg seen bët. te ñëpp dana ci teg seen bët. te kenn du ci mën dara. te kenn du ci mën dara. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ak ñett salaatul faate ñaan yàlla barkeel sa yi ñu fas. na ku nekk ñaan faate benn yoon ñett salaatul faate ñu ñaan yàlla barkeel sa yi ñu fas. maye ci njaboot bu barke. nga maye ci njaboot bu barke. waaye bu ñu jàngee ba pare am na yóbbante bu xarit bu yóbbante daa leen ko wax. bu ñu jàngee ba pare imam na am na yóbbante ba pare ba ñu yóbbante daa leen ko wax. amiin. xalifa bi mu ne mu ngi leen di nuyu di leen dokkeel te di leen ñaanal yàlla. ñaan yàlla ne àddina bi yëpp la matale. di ñaan yàlla itam teew teew bii yëpp la matale. yàlla mi koy yàlla ko teggi. yàlla ko andi yàlla ko musal jullit ñi. islam yi lépp. yal na yàlla musal alamin islam yi yëpp. yal na yàlla musal Sénégal. yal na yàlla musal Sénégal yaa rabbi. yal na musal waa Kaolack lii di wëndeelu ci àddina bi. lii di wëndeelu ci àddina bi. yàlla wan na mbindee fi ne moom rek mooy yàlla te moomoom mbiram yi moom delloo moom delloo. yàlla wan ndax docteur yëpp. suñu daje woon tey. suñu daje woon tey. lajj nañ pour yëkkati. lajj nañ pour yëkkati. lii yàlla wàccee nii. lii yàlla wàccee nii. yàlla mi ko wàccee rek nag. yàlla mi ko wàccee rek nag. moom moo ko mën a yëkkati. moom moo ko mën a yëkkati. yàlla ko yëkkati ci jàmm. yàlla mu ne. mu ne. julli gii ñu julli ajuma. julli gii ñu julli ajuma. gannaaw bu ñu waxee ne ne jumaa yi taxawal seen ajuma yi. gannaaw bi ñu waxee ne ne jumaa yi taxawal seen ajuma yi. dañoo nekk. dañoo nekk ba midi jot. ba midi jot. ba nit ñi dugg ci jumaa ji ba toog. ba nit ñi dugg ci jumaa ji ba toog. ñu door a wax ak ñun. ñu door a wax ak ñun. su fekkoon ne dañoo wax ak ñun démb wala barki démb. su fekkoon ne dañoo wax ak ñun démb wala barki démb. tëralal ñu li nga xam ne moom la ñuy wax nit ñi. tëralal ñu li nga xam ne moom la ñuy wax nit ñi. ñun xam nañ diine. ñun xam nañ diine. te xam nañ ne yàlla jëfewul nit ñi mukk ci lu jafe lu yomb rek la dul ci moom. te xam nañ ne te xam nañ ne yàlla jëfewul jëmewul nit ñi jëmewul nit ñi mukk ci lu jafe ci lu yomb rek la leen jëme ci lu yomb rek la leen jëme moo ko wax alquran ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ne yàlla lu yomb la bëgg ci yéen bëggul lu jafe ci yéen ne yàlla lu yomb la bëgg ci yéen bëggul lu jafe ci yéen yonent bi daa wax ne yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru yombal leen yombal leen leen nit ñi te bu leen ko jafee ci ñoom yonent bi wax nañ yombalal leen nit ñi te bu leen ko jafee ci ñoom wax leen leen lu leen di bégloo. wax leen leen lu leen di bégloo. bu leen di wax lu leen di dàq. bu leen di wax loolu leen di dàq. looloo tax ñu julli. looloo tax ñu julli. su fekkee nag ne. su fekkee nag ne. ñii nga xam ne. ñii nga xam ne. ñoo fi uti président fii ci Kaolack. ñoo fi uti président fii ci Kaolack. ñëw nañ. ñëw nañ. toog ak sëriñ bi waxtaan ak moom. toog ak sëriñ bi waxtaan ak moom. seet li nga xam ne mooy maslaa ñu seet li nga xam ne mooy maslaa ñun bañuñ ci maslaa dara ñun bañuñ ci maslaa dara bañuñ ci dëgg dara bañuñ ci dëgg dara bëgguñ bañuñ itam bañuñu itam lenn loo xam ne mooy indi jàmm ci réew mi lenn loo xam ne mooy indi jàmm ci réew mi ndax suñ guddi ak suñ bëccëg yëpp ci loolu lañ koy dox ndax suñ guddi ak suñ bëccëg yëpp ci loolu lañ koy dox xutba gii ñu doon jàng xutba gii ñu doon jàng sànq ba ko bàyyi bindee ak léegi mën na juróom-ñetti fukki at ba ko bàyyi bindee ak léegi mën na juróom-ñetti fukki at waaye lii waaye lii. dal àddina bi lépp. dal àddina bi lépp. mu ngi ko ciy ñaan. mu ngi ko ciy ñaan. pour yàlla musal ci suñu réew. pour yàlla musal ci suñu réew. te musal ci Sénégal yëpp. te musal ci Sénégal te musal ci àddina bi yëpp. te musal ci àddina bi yëpp. kon moom xamoon na ne. kon moom xamoon na ne. yàlla waxtu bu ko neexee rek mu feeñal lu ko neex. yàlla waxtu bu ko neexee rek mu feeñal lu ko neex. moom mi feeñal nag moom rek moo mën a yëkkati. moom mi feeñal nag moom rek moo mën a yëkkati. du tere nag. du tere nag. sabab yi nga xam ne moom lañ tëral ñoom. sabab yi nga xam ne moom lañ tëral ñoom mën nañ ci maslaa topp ci mën nañ ci maslaa topp ci lépp loo ci xam ne du yàq suñu diine lépp loo ci xam ne du yàq suñu diine duñu ko bañ mukk laa dina duñu ko bañ mukk laa dina ndax lu mel nii ndax lu mel nii amoon na ci jamono amoon na ci jamono Abdoulaye ibn Omar Abdoulaye ibn Omar ay xadis yu bëri yu ci rot ah, ah wala ay hadis am na ay hadis yu bëri yu ci rot am na ay hadis yu bëri yu ci rot mun a jullee leen ci seen néeg yi mun a jullee leen ci seen néeg yi te bàyyi dajee bi te bàyyi dajee bi bu fitna bi yëkkati ba fi la bi yëkkatagul. ñoom itam suñ teeloon a toog ak ñun. ñoom itam suñ teeloon a toog ak ñun. ñu wax leen liñ xam ci loolu. ñu wax leen liñ xam ci loolu. waaye nag kenn waxuñu dara. waaye nag kenn waxuñu dara. te olof dañoo wax ne. te olof dañoo wax ne. suñuy teel a jóg. suñuy teel a jóg. suñuy tëdd lañ ko war a wax. suñuy tëdd lañ koy wax. waaye duñ nekk ba mu jot rek ñu ne jóg leen bu boobaa ñu bëri duñ jóg. waaye duñ nag ba mu jot rek ñu ne jóg leen bu boobaa ñu bëri duñ jóg. ni ñu waxee ak ñëpp. ni ñu waxee ak ñëpp. noonu lañ waroon a waxee ñun. noonu lañ waroon a waxee ñun. ñu xam fi ñuy taxaw. ñu xam fi ñuy taxaw. xam li ñuy wax nit ñi. xam li ñuy wax nit ñi. loolu la. loolu la. waaye ñun jalgatiwuñ benn charte. waaye ñun jalgatiwuñ benn charte. jalgatiwuñ nguur gi. jalgatiwuñ nguur gi. jalgatiwuñ itam seen tëralin. jalga ja jalgatiwuñ itam seen tëralin. ndax ñun. ndax ñun. jàmm ji ñu ñuy ut ñoom. jàmm ji ñuy ut ñoom. ñu ko doon ut démb balaa liy ñëw. ñu ko doon ut démb balaa liy ñëw. ñu ko doon ñaan yàlla démb balaa liy ñëw. ñu ko doon ñaan yàlla démb balaa liy ñëw. kon nag. kon nag. nañ fexe bay déggoo ci kàddu yi. nañ fexe bay déggoo ci kàddu yi. ñu xam li ñuy wax jaamu yàlla yi. ñu xam li ñuy wax jaamu yàlla yi. xalifa bi loolu la waxoon ne. xalifa bi loolu la waxoon ne. leeral wax ko nit ñi. na ko imaam leeral wax ko nit ñi. état bi dégg loolu. état bi dégg loolu. nit ñi itam dégg loolu. nit ñi itam dégg loolu. su fekkee ne dafa am leneen lu bees. su fekkee ne dafa am leneen lu bees. ba ajjuma jot. ba ajjuma jot. ñu ne nañ jullee ci suñ kër yi. ñu ne nañ jullee ci suñ kër yi. nañ jullee ci suñ kër yi te xam ne julli nañ ajjuma. nañ jullee ci suñ kër yi te xam ne julli nañ ajjuma. loolu rek laa bëggoon a wax. loolu rek la imaam bëggoon a wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah.